But ليكون ذا الخيار

عليه خير الصلوات الأعلى زدت له أبكار أمداه الأدى من جهل شري وصف الخلدا قلبي صفى بكون ربي خلي هبي ولي جعل كسر الخل وجعلني على وسط الدارين وفيهما جعل nee na yàlla na ko yàlla jëmale kanam te it mu yokk leen yéen ñëpp yokk ko moom mii ngeen àndal di ko jëf ndax nee na moom mii day nii rekk la ko daa defale sëriñ bi nee na bii sëriñ bi da ko tàmbali ñaanu sëñ baara gi benn ndab la ko jëkkee muy booli nee na ba ca topp di ñaar. waaye nee na daa mujj li muy yóbbu. sëriñ bi ni mbooloo mi ñëw ci ñaan gi day daa bari waaye kon li sëñ Sidi indi dina doy sëkk. ko it nee na yéen ñii mi ngi ñaan ak maam seex ngeen barkeele noonu rek nee na yàlla na ko yàlla def ci barkeb Cheikh ngañ jenn barkeb Cheikh Issa barke Serigne Touba nee na ngeen góorgóorlu bu baax rek fas yéene wee ci ndigal rek. moyen di koy tere nee na sëriñ bi daan na wax naan képp kuy wee ci ndigal te bàyyi tere loo bëgg li nga bëgg soo ko amul kenn du ko am nee na ñàkk ci ndigalat mujj ga réccu rek waaye wee ci ndigal moom bu njaal ben nga mujje mu teet mi teet mujj ga day neex rek kon nag nee na ngeen góorgóorlu baax nee na mi ngi di ñaanal ndax xat-xat na ñëpp nangu ñaan. جيت خدمتي بدا نفيت صنه بأني الخديم بما غنى عن مثله كل قديم فره صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضيق الذي ضيقني من العدا عليه تسليما مبين من عدا لكل من ضيقني من قبله ولم يكن دنيا وأخرى تقبل به جهادي وجهر في بقدر عظمه ذات الكريم منن معظمه يسوق لي ما سهي بلا انتهاء ولا أزل كما له سير انتهى ساق لي الباقي بلا بلا انسرا كن فيكون man bu yéene na jotte am nu yoom ak cantam ak ànd ko ànd ak bis bi ndax ba nga waxee ne dana ko yëgal bis bi ma wax ko ko lépp sama sama ndigal jiitu na ci ak sama ñaan te noo koy ànd moo tax tey jii mu loo a jàpp nga bàyyi ko jàpp mooy bi ñu ñu Mamadou Diarra ci Mbàkke te ñu taale nekkee ci gan ñi ba noyee ni ma naa ñëw àggale kàddu sëñ bi nga xam ne sëñ bi daal sant lool gërëm la lool ndax liggéey bi xam ne noppaloo ci te waxtu wu nekk yaa ngi ciy def dafay ci lu koy jot ndax sa pëstéef ak sa yitte moo tax nga di ko defee te loolu si Muntaxa da ko xam lool sant la ci gërëm la ci te yàgg na da ngeen yàgg lool ba ngeen di xaritoo mën a yàgg na booba sëñ da ngi fi koy waxee ba ngeen xaritoo boobu bàyyi ma ngi fi ah, loolu nag kon dañuy te ma itam dama mu yawal ci ma fi ndax sama digg yow yow itam da nga ma doyloo ci seen diggante looy wax ci moom man nga wax ma wax ko ko man nga lu mu yónnee ci yow man lay yónnee ci loolu xam toon diggante moo tax loolu mu sant naa ci yàlla lool sant na ci loolu itam di ñaan rek sa borom nangol la bis bi yàggal taxawaay bi dëgëral ko ba lépp loo yéene lépp loo sëmb nga sëñ bi sa borom àggale la ko ni nga ko bëggee nga day tafeex sëñ bi ak ngërëma mag ñi jërëjëf jërëjëf nee na ak sa kàddu yu rafet yi nga fi yëkkati nee na mi ngi ñaan rek sunu sëriñ boobu di sunu kilifa di sunu waajur yàlla dolli nu ko sàmmal bu baax a baax dolli wér gi ak fan wi mu yàgg fi lool lool loo xam ni dina kawe njortam kawe sunu njort nee na yàlla mën na ko yàlla na ko def nee na fu mu toll daal mi ngi koy bëgge ak di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax nee na di sàkku ci moom it ak ñaan nee na moom day xam naa taxul mu kii sax waaye nag yéeneem ji mu am ci moom moo tax fu mu toll di ko ñaanal rek mu yàgg fi tewir lool ba lépp li nga xam ni mooy yéeneem mu def ko ni mu ko bëggee nee na yow miit sab taxawaay ci wetam rafetlu na ko lool. nee na it xelam dal na ci bu baax ndax noonee nga fa taxawee di ko taxawu di ko dimbali nee na loolee nun ñëpp la war te nun mënuñu ko kon yow mii koy def dinu ko defaaleel ñun ñëpp ñu ngi lay sant bu baax nee na bu ma saa ànd ak sëriñ bi dem ci kër sëñ Saliou mu am lu muy yëkkati jox ñenn ñi fi sëriñ bi ni leen ndax lii ngeen di def damaa war it te mën mënuma ko ndax ne awma jotam te nii ngeen def di taxaw sëriñ bi ñun ñëpp la war yow it loolee ngay def ñun ñëpp nga koy defal nee na xam nan ni amoo benn soxla bul soxla sëriñ bi ak soxla yi taalibe yëpp jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke بالمكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجالي الأمان دون خوف باق كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وطهر الخلق من التحميم لي يقول الله للماء النبي ما لا يراه أحد في قلبي يقول للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بالتسليم هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذان حنيت عن سيف وعن أرماه واجهني الشفيع من نفسي عني خديم النور والبشير ضيق من البشير بالصفاء من كدر وجادة الشفاء أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل

الرسل القرآن والحديث معدوله التفسير والتحديث ساق لي الملزم خير الذكر وكان للباقي بغير مكر تسليم من لي كان بالأغراض على بشير قد مها أمراض بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات نعم خير العالمين شهدت أن الله ولجناب لا يميل جاهد رفعت أمدادي لأفضل الورى وخاد لي مع مناي الصورى وجهني ما خاب عن أمثالي باقي كريم جل عن مثالي نفعني ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجه لي ونلت خير سور توجه لي المنى بلا انتهاء وبالرضا يساق لي ما يشتهى من الإله والرسول أقبلا خير ثواب من جهاد قبلا ناجاني المنزل بالكتاب وهو ما يحمي عن العتاب إذا كتبت أو خلقت حرفا غصم أنت له ذاك الحرفا ليقش ذات الحروف الطرا ولا توجه إلي ضرا لي المنافع بلا أجدار في دارتي أمنا وتلك داري هدى ونور ورضا وبركة فجعلني في ماء فقر مدركا واجعني الكريم عام أخششي بأجل ما كتبته لقصصي فجاءني بقول كل حرف كتبته لي بأجل صرفي ذكر الكريم جاد في السوالف بمعجل ñoo ngi yëkkati ay kàddu ci ndigalul sëriñ Sidi moom sëriñ Naar ngir ubbi jataay bi nga xam ne waxtu wu ne mooy liy tëj ñaan gi ci ndigalul ki fi nekkal sëriñ Touba mu di Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te dolli ak wéram waaye ki fi nekkal maam Cheikh Issa Dieng waaye di ko def nag ki fi nekkal sëriñ Baara mi nga xamante ne bii mooy wajuru Serigne Naar di ñaan suñu borom mu dolli yërmande ak xéewal latif jenn ak mbooleem njaboot da nga xam ne ña nga fa Serigne Sidi di ne Serigne bi mi ngi lay seereel cantam ci mbooleem njabootuk Serigne Issa Jenn képp di la seereel ak cant ci mbooleem njabootuk sëñ Baara gi kenn defut bindoon nañ ko kenn ku ne sawtul waaye di la sant nag ci rakki boppam yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ naar teñ di ko jàppale ci liggéey bi subaa ngoon tam yam ceeg ñoom képp di sant dongo yi ci seeni taxawaay te ku yendoo liggéeyal sëriñ Touba ba ngoon jot ak foo ko mën a liggéeyee sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha nga war a rendre compte ndax moo fi sëriñ Touba. sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ñëw ne fii. moom sëñ Abdul Xaadir it ñëw na fi sëriñ Ahmadou Rafahi moom Cheikh Mamadou Fadal ñëw ne fi sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdul Khoudous ñëw na fi sëriñ Cheikh Mbacke Abdoul Ahad ñëw ne fi sëriñ Baara Mbacke ñëw ne fi sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou Latif ñëw na fi. daana fi teew di fi teewal sëriñ bi ndax xam na ne yaay ndawul sëriñ bi waaye faawu mu ñëw fi léegi la fi jógee Abdul Fatah moom moom Cheikh Mahamadul Fadal yabal na fi Serigne Khadim Serigne Serigne Murtada moom Serigne Falilou yabal na fi Serigne Modou Mbacke doomam Serigne Amsatou Diakhaté chef de village bu Touba ñëw na fi Serigne Abdoul Ahad Ka bu Touba ñëw na fi Serigne Cheikh Alim mi nga xam ne mooy xalifa maam Cheikh Issa Diène moom it ay njabootam yépp teew nañ fi. sëriñ Abdou Salaam jenn sëriñ Sidi sëriñ bu jenn xalifa sëriñ Baara jenn njabootam gépp ñu ngi ci sëriñ mbakke jenn ak njabootam ñëpp teew nañu sëriñ Seex Astu Mbay moom it njabootam gépp ñëw nañu moom it ñëw na sëriñ Seex jenn xalifa sëriñ Yuusu jenn ak ay rakkam yëpp ñëw nañu sëriñ bu jenn xalifa sëñ Mbàkke Marema ak i rakkam yëpp ñëw nañu sëriñ naar jenn xalifa sëriñ basiiru ak ay rakam yépp ñëw nañ sëriñ siidi moom sëriñ seex ndànd ñëw nañ njabootu sëriñ moodu aminta fall gi sëriñ fàllu ak ay nañ fii sëriñ seex fall ngunda moom ñëw na fii waa kër sëriñ Masamba Diop seex Masamba Diop saam moom it ñëw nañ fi waakar kër sëriñ Adama ñëw nañ fi waa kër sëriñ Mor Jenn daaray sëriñ ah, daaru ñoom ñëw nañ fi waa kër sëriñ Ali Sey sëriñ Baara ak ay rakam sëriñ Omar ñoom ñëpp ñëw nañ fi waa kër sëriñ Seex Daaru Kañ Ngañ Tandine ñoom ñëpp it ñëw nañ fi waa kër sëriñ Seex Ibrahima Mbacke moom waaw sëriñ Ibrahima Mbeng moom sëriñ Sidi ak ay rakam ñëw nañ fi waa kër sëriñ Seex Moor Mati Wadd ñoomit it ñëw nañ fi daayira sëti Seex maam Seex Isaa Jenn yi ñoom ñëpp ñëw nañ fi sëriñ Seex Mbàkke Baara Xureeja ñëw na fi waa kër sëriñ Daaru Asan Njaay sëriñ Mbàkke Njaay ñëw na fi sëriñ Jiili Mbay moom ñëw na fi sëriñ Moodu Mbay Madina njabootu Seex Moor Njaay ñoomit ñëw nañ fi sëriñ Alxaaji bu ay rakkat mbooleem ku tudd ak kuñ tuddul ñoom ñëpp ñëw nañ fi da la xamal na it sëriñ Seex Baara waa kër sëriñ Daam Surang it ñoom ñëpp ñëw nañu sëriñ Cheikh Baara Lahat waxtu wu ne da daan ñëw fii teewandoo ak yow ren nag nee na mu fekk ko bitim réew waaye teewut mu tànn doomam yabal ko fi kon ñi ngi lay xam boot gi kenn desut daal ñoom ñëpp ñëw nañu sëriñ bi daa waxoon ne duñ la fi téelu yàgg ndax xam na fi nga toll ci moom adduna bépp it xam nañ fi nga toll ci moom moo tax mu ne woon nañ ko laaj waxtu wu mën a ñëwee rek su waxtu woowa jotee ñu agsi mu teew yeewi mbooloo mi ndax liñ doon def sëñ Touba ndax sëriñ naar sëñ Touba rek la daan liggéeyal kon jaajëf jëmoom ci sëriñ Touba la war a bàyyi ko jëm ci dongo yi ñoom dañoo toog ne ci kër gi ne waaye sëriñ Touba mooy borom kër gi mooy borom njaboot gi kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Daam Gay mi nga xam ne mooy jëwriñu dongo yi mu yëkkati ay kàddu su noppee rek sëriñ sii di wax sëriñ bi tëj ñaanal mbooloo mi ndax nee na kàddu gi mën naa doon genn kon ñu jox kàddu gi mu yóbbaale dongo yépp nag wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi siyaare ñëpp di baalu àq ñëpp tey baalu àq ñëpp waaye noo ngi ñaan sunu boroom yal na nu boole ak njëgal nu ñëpp ci barke boroom bis bi eh, nu yëkkati suñuy kàddu ci ndigalal suñu kilifa gi toog muy Cheikh Sidi moom sëñ Naar Diène muy kàddu yi soññee rek yu jëm ci mboolem sama bokki taalibe yi nga xay ni xay na maa leen féete ak mag ba war leen a soññi ñooñu ñoo tax wax jee jóg nu bokk xam ni ay taalube lanu te taalube moom amul lu dul ndigal ak njëbbal nag day mel ni kenn ku ne yaa sa bopp wax naa la sama bopp adduna ak àllaaxira loolu nag la muy tekki ci wolof mooy boo ma digalee ma def boo ma teree ma bàyyi kon loolu ñun ñëpp dañ cee war a bàyyi xel te sëñ bi day ndigalam ba mu noppee gis waajuram wi tàddaw ba fii ma ne mësta weesu la Cheikh Issa Diène doon digle daan ko def mësta weesu la Cheikh Mad Lamine Diène daan digle te di ko def mësta weesu itam la Cheikh Naar Diène daan digle te di ko def weesuwu ko romb ko fenn loolu itam day mel ni am na ñaari firnde benn firnde bi ci jëkk mooy sëriñ naar jenn moom waxal ci kàllaam boppam ni ma te booba dañuy wax ci biirug taalube mu xamal ma ni ma siir yi mii dara naqariwuma ci moom loolu moo ko wax ci kàllaam boppam waaye bis ba ñu ko noppee gis ci takkusaan gii dafa am moom mii waxal boppam loola dafa dëppoo ak kàddu gi nga xam ne moom la sëñ bi waxan ni dara na xariwuma ci moom te loola mooy dama ne wool ma sama rakk yépp ñu ñëw fekk ma fii mu woo ñépp ñu sukk fi kanamam mu xamal leen ni leen sëñ naar janday mi doon sunu waajur di sunub sëriñ képp koo xay ne kii doomam nga wala rakkam wala taalubeem yoon wa mu jaaran boo ko mukkulit war nga koo miin ba waratoo ni kenn ana yoon wa man mii nag maa ngi leen xamal bis ni ki tey ni yoon woowee mu jaaran fasuma yéen a wàcc ko mukk te ku nekk xam ne wàccul yoon woowu kon yal ko yàlla musal ci ndog yi ba mu bañ waaye kon nag nu xam ni nit ku ko bëgg la mu bëgg da koy bëggale sëñ bi benn bëgg bëgg rek la am muy sëriñ bi ak ndigalal sëñ bi nan ci am pas-pas bu nu wuy yi bu laajeenu joxe li na am tabaski gii nu jublu waajuram wa da ko fonkan lool te mas na maa dégg kilifa joxe ci màndarga moo xëy nun ñëpp dana ko war a bàyyi xel mu ni lu waay néew néew doole bu sa soxna aman ñaari seex say bokk dinañu def pexe ba jëndal la yaari xar sëñ bi xar yi muy laaj jëmewu ko fenn lu jébbal ko sëñ Tuubaa muy njariñam di njariñal taar njariñal taar bépp di njariñal kër gi kon nun ñëpp ci war a sawar waaye nag maa ngi ci soññ ñi nga xam ne yàlla may leen kartanu man ko ba noppi di wut wenn lay ci ñàkk joxe xar yooyu waaye ñi nga xam ne itam seen doole àggul ci joxem xar moom mii kat la waajuram wa daan def nekkan ca loolu ca la ndax bis bii de sëñ naar jenn taxawu na ko la fa daje ñu seet ko cib xaalis la ca tool juróom-benni dërëm la waaye juróom-benni dërëm yooyee da koo ànd daa ànd ci liggéey bi lépp mu mu yët yët ko sëñ Saaliw loolu sax bu ko sëñ Saaliw gisee def na ci moom aal kon nag li nu war a def mooy ñi man nañu jëf ñi mënul itam fa seen kàttan toll nañu fa jafe ñu ànd ci li ñu yóbbu sant nañ ko ñëpp noo ngi soññ itam nag daayira soppi yi nga xam ne dama koo jiite maa ngi ci soññ ñëpp ñu def ci sunu pas-pas def ci sunu jom ndax bis bii rek moo tax dayre ba moo ko jóg moo ko tax a jóg asgoor nag dañoo wax ni lu mu am lu mu moom da koy fonk waaye lu mu bokk ki nawle itam da caa war a def jomam kon nii amuñu lu dul sëñ bi kon dañ ko war a fonk dañ cee war a def sunu jom noo ngi ci soññ ñëpp sëñ bi nag noo ngi ñaan ci màgg suñu borom yow ak ay rakk yi ak mboolem doomu aadama bu la ko yéene wér gu mat sëkk te yàlla bàyyi la ak sam ndax rusuloo woo mag ñi fi nekkan jëf ji nga xay ni moom la borom jenn daan jëf ci kanamu sëñ Touba Cheikh Malamin jenn doon ko jëf sa waajura doon ko jëf lenn lu ne yokk nga ko ci kanamu doomu aadama yépp yokk nga ko ba noppi rafetal ko kon nag noo ngi lay sant noo ngi lay ñaan sagal nga nu siggin nga nu waaye nag sagal nga yoonu sëriñ Touba sagal nga yoonu Cheikh Sa Jenn bi noo ngi sant ñëpp nu dolli pas-pas yi te xam ni taalibe amulul ndigal bu sëñ bi wootee nan wuy bu laajee nan joxe la nu am ginnaaw toobi lu nu sas asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani di nuyu mboole mbokki taalibe yépp di ci jiital sunu kilifa gii muy cheikh Mouhamadul Basiiru Mbàkke nee na mi ngi koy nuyu bu baax di ko sant ci teewaayam. ndax ab teewaayam mooy teewaayub Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ni moo yilif yoon wi ndax ci kàddoom lay joxe doxe ak ci ndigalam kon nag su teewee mel na ni Cheikh Mouhamadul Mountakha moo teew kon nee na mi ngi koy sant bu baax nee na lépp li nga xam ne waroon na ko ci bis bi def na ko ci muy teraanga lu kawe njortam kon nag nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di sant sunu kilifa yi nekk ci sunu kanam Cheikh Abdou Alim Diène yàlla na ko yàlla may ak wér ak kartan Cheikh Abdou Diène Cheikh Sohay bu Diène yàlla na ko yàlla dolli ak wér ak kartan ak mboolem njabootu Diène gépp Cheikh Abdou Latif Diène yàlla na yàlla dolli yërmandeem ci moom ak ay xéewal ca barsàq ci barkeb Seexna Isaa Jenn nee na ginnaaw loolu nag nee na waxtaan wi da koy tënk rek bi ci jëkk moo di sant yàlla bu baax a baax a baax julli ci yonent bi sant kilifa sunu kilifa ya ak sunu maam ya sant nag mboolem taalibe yépp ndax bis bii bi nu leen ci woo ñoom ñépp wuy si nañ kenn ku nekk la nga manit sa kem kartan def nga ko ba li nu ci bëggoon lépp am nan ko kon nee nañu ñu leen ci sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax nee na borom bis bii nag lépp lu nu ko defal rekk yeyoo na ko ndax moom mbiram lépp seexul xadim rekk la génn ko fenn nee na ndax mas na ko wax ni ko nee moom sëriñ naar mas na ko wax ni ko dama mas wax sëñ fàllu ni ko dama bëgg nga ñaanal ma ba mu am doole su ma amee doole rek dara du ci génn sëriñ bu ci dara génn sëriñ Tuuba nee na sëñ fàllu ni ko saa ab joxañ ni ko solo de bu ci nee na loolu moo tax sëñ naar ni moom daanaka mënumaa génne sama lenn ci sëriñ Touba lépp sëriñ bi rekk la nee na li ko waroon lépp ci lislaam ak yoon wi def na ko nee na moom sëriñ séq ci ay waajur jàng na tërbiyewu na làq na ay ngërëm yu baree baree bare bari Serigne Fallou Mbacke gërëm na ko Cheikh Mouhamadou Lamine jenn gërëm na ko ñi mu jamonoon teel ci doomi Serigne Touba yi ñépp gërëm nañu ko loolu nag mënee ko weesu kon nag noo koy sant bu baax nee na bis bi lépp luñ ci def rek yàlla na ko yàlla ful te jotale ko ca yool ba taas lu ci barkeem nee na kon nag nun ñii fi des nan góor góorgóorlu bu baax toroy ko rek la mu nekkoon ndax moom de daan na wax ne lu mu am lu ne Serigne Touba la koy yëpp nee na mas naa wax sëriñ Saalihu ni ko man lu ma am yow laa ko yéene nee na daan na waxit ni loo xam ne su ma ko amee duma ko mën a joxe ngir yàlla yàlla bu ma ko am nee na mi ngi fàttaliku Cheikh Thiaw mii toog dikk jox ko bitéelu laj ko lañ mu daal di koy ubbi xeeñu ko ni sii bii de daa neex sëñ Saliou rek laa koy yëg nee na Daam Njaay mee toog booba yàgg na sëñ Baaraa ngi fi indi na fa xarum tabaski moo xam ne booba xar mu yéeme la ca jamono joojam mu bindoo bind bu mel ni bindu gaynde waaye dañu xar mi du ko tabaskee dama ko yëpp sëñ baara waaye da caa teg ni su ma ko ko yëtee teel koo yóbbu da ko yëpp sëñ Abdou Lahat damay bàyyi bay julli ji rek teg ko ci ginnaaw mbaar mi bu julee ba génn rek ma taxawal ko ci bunt bi ni ko xar maa ngi nii waaye ba fa fanaanee mu ni duma ko tabaskee dama koy sëñ Abdou Lahat ñoom noonu la mel lépp lu ñu am rek Serigne Touba ci lañ ko jëmee te it ñun ñooy sunu royuwaay te ñoo nu ëpp xam-xam ñoo nu gën a yewu kon nag nan góorgóor lu baax rek nee na at mi maamam Cheikh Mouhamadou Lamine wàcceeb liggéey danoo nekk ci biir nekk sëñ Baara bi booba Serigne Baara tabaxum ñaari néeg la fi bàyyi muy seng bu gàtt ak benn lalu bopp xànjar ak benn photo yi. nee na ñu nekk fa mu ne ma gis nga ko de sa maam de lii la fi bàyyi waaye yowmal xiyaam képp ku la ëpple te defu ko ci yàlla moo lay gën a sonn mu ni misaal mi nun ñëpp bu Cheikh Abdoulaye woon yéen ñëpp fekk leen ma jumaa ji ñu jóg mu ni kenn ku ne li nga am na ko indaale ka ko doon yóbbu bu yàgg di ko denc day soli dàllam rekk dem waaye nag ci doon dajale dadaar balaa ruñ ba noppi fitna ju rëy rëy lay doon ci moom mu ni looloo waral yowmal xiyaam taxawaayu pénc bis pénc bu yàgg ba nee na kon nan góorgóorlu bu baax lépp lu mën a am daal bu nu fàtte yàlla jiital sëriñ bii nag di son royukaay ci lool yi rekk la nekkoon loolu rekk la nekkoon loolu it la nu te moom day ci góor yàlla yi la bokk nee na am na kilifa bu mas a waxal ni ko man de ci ñu jëkk ña laa bokk sikki nee na amul sikki nee na toog nañ fii ci këram gi nee na mu ni ko man de siidi fii mu ne sama baay gi damaa sori ay kilomètres yu bari nee na ma ne ko ah kër gi mètre moo dox seen diggante waaye booba dafa nekk te nekku fi ndax ko wax ko ni ko man de jamono yii yëpp lu may lekk damay saf ñamu àjjana nee na démb rek mi ngi koy nettali nee na mun leen waxuma waxi baatin de waaye bi mu fi jógee nee na moom mii gént na gis ko nee na sëriñ naa ne ko maa ngi wëreelu ci àjjana yi ni ko jamono ji maxwaa na moom Serigne Sidi mii li am la loo xam ne nee na moom naa naam gisu ko su géntee gis Serigne naar nee na bu demee fekk ko fa loolee mu gisoon ci gént lu wér la nee na waajuram wa Cheikh Mouhamadou Lamine da daan wax da daan wax ne man suma ma fi jógee du ma jaar fenn waaye nee na sëriñ bi nee na bi sëñ Mouhamadou Lamine Diène wàcceeb liggéey diggante une heure jëm deux heures te mënee su cee def dara te nu ko sëñ Abdou Lahad nee na bi mu dikkee fajar teel daa mel ni Cheikh Abdou Lahad da koo xam nee na daa fekk Cheikh Abdou Lahad ubbi buntam yépp nee na daa jawar rek ba àgg ci moom nee na bi mu ko nee sëriñ bi wàcc na liggéey nee na Cheikh Abdoulaye ni ca man de sëñ jaaxal na ma ma nga àjjana de te booba kat sëñ Baara génnagul kër gi kon nag loolu lépp jëf ak góorgóorlu wéy ci ndigal mooy indi koy tere loole rek lañu ko amee sax ci ak taalibe ah, waxoon na mag ni leen adduna reggaayub démb fajul xiifub tey lu neex lu añ neex neex tey ëllëg añoo day mel ni masula añ te adduna noonu rekk la mel lu gaaw la luy jeex la nee daa mel ni gént rek na ngay defe ni lu yooyu la bam jikki-jikki ni kasar rek kon nag nee na nan góorgóorlu bu baax ci dolli nag nee nun de taalibe njenn lanu Cheikh Issa rek lan yaakaar ndax mooy sunu bunt ci Serigne Touba nee na muy bunt bu mat sëkkit nag nee na li ma wax ci Cheikh Issa nag nee na du wax waxi boppam waxe ñeneen lay nettali waaye leen wax kenn du leen weddi sëñ Mbàkke Kanni Buso kenn du ko weddi Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana kenn du ko weddi Cheikh Ibrahima Diop Masariw kenn du ko weddi Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké yaakaar na ni kenn du ko weddi ndax ñoom ñëpp Serigne Touba ca lañ nee na bi ko yàlla dimbalee ak farloom ma ngëneelul yàlla gis na nee na gis na Cheikh Mbacké Kanni Bousso mu bind wax ko ni ko yow de yaay imaamul muridina war raisu yow yaay seen kilifa ñoom ñëpp taalibey yoway seen njiit yoway seen kilifa nee na ko yoway ki nga xam ni ku tax ak Serigne Touba ku ne dégg na sëriñ Touba ni Xiisa Jeen du wax mukk lu dul dëgg ni ko yoway ki nga xam ni Serigne tuubaa daa bàyyi ba guddi gi xaaj da bàyyi mooy mu lëndëm rek mu jàkkaarloog yàlla ni ko damay sàkkul Isaa jenn mu kawe ak maasam ne Abdou Khadir Jili Jaylaani kawe ak maasam Abdou Khadir Jaylaani wali yu moo la féete kaw ni ko Isaa jenn mii wali yu dina la féete kaw mu wax ni mujj na ba Seex Isaa féete kaw ñëpp nee na loolu su ko wax Cheikh Ibrahima Diop Massariou nee na ko Cheikh Issa yow de làq nga ngërëm yëpp làq ngay ngërëm akook texe ak jige Serigne Touba ci loo xam ne bi jige bokk de liggéey ko rek moo la tax làq ngërëm yooyu ni ko yoway lamp bi yoonam wi mboolem ku doon dox ci lëndam bi nga ñëwee ci yow la leerloo loolu moo ko bindu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na ko fukki at ak juróom yi ci njaareem mujj na ñëpp yaay seen royukaay xat kaana xudwata jamil fa xat kaana xudwata jamil Seex Isaa Jenn moo doon royukaayu ñëpp ci fukki at ak juróomi njaareem yi moo doon nasukaayu pexe yi ñëpp ci pexem lañ doon doxe liggéeyal na ñëpp ci laabiire ak di leen dimbali nee na lii may wax dañ koo bind dama wax prima rek bàyyi arab ba waaye lépp lu mu la wax rek moo ko bind sëñ Fàllu Mbàkke di sëñ Tuubaa mot sëkk bi mu nekkee xalifa cib kees kees leetar ba mu ko jëkk bind da ko ni man dey duma wute yow ci dara ba faw ci lu may fas ak lu may ficci lépp lu may def dama ciy dëppoo yow ba noppi. loolu kat. ni ko iqtidaa bi Cheikh radiyallahu anhu. maa ngi ko royee ci. nee na boo jàngee lettre ba. kun lii kun ka ahadi ma seyxi. nee na mu ngi naa kun lii kun lii ka ahadi ma seyxi. nee na loolu Serigne Naar moo ko fekkil moom mii moo ko tiril. nee na Serigne Naar bi mu ko ko tiril da ko nii. jàppale ma jàppale ma la ko wax ni mu ko defale woon Serigne Touba nee na moom nag bi mu ànd ak Serigne Touba saxasal la caxasal la nee na yan bii ko Serigne sunu borom ba mu ko ko joxee moo ko ni xiisa jenn jàppale ma ci yan bi sëriñ bi ni ko sëñ Fallou nag ab gisam daa sori jàppale googee wax ci leetaram bii mu ni ko kun lii kun lii bi muy wax jàppale ma jàppale ma ni nga ko defale woon sëriñ bi nee na kon nag bëggut a guddal na ko yemale foofu nee na mi ngi ñaanal sëriñ Basiru mii nag ci pësteefam ak taxawaayam nee na pësteef bét nee moom day lu mën a wane la man koo waxit gis ko doonte moom mii bëggul ko ko waxit toolam yi ko Cheikh Mouhamadou Mountakha doon bàddali loo mu di ko woon liggéeyal nee na jafe gerte ga bari na lool ngooñ maat bari na lool nee na ba mu ko jaayee nee na moom di tudd lim bi ndax daa mel ni gënalu ko waaye noonee la ko boolee lépp ni ma Serigne Touba laa ci doon liggéeyal boole koog alaa Jili Njaay mee ñu dem yëbbal ko sëñ Muntaxa benn dërëm jëriñoo wu ko ci nee na liggéeyal Sëñ Touba rek la fa doon def ndax nee na wutu xaalis yóbbu ko fa wut daraja yóbbu ko fa roy mag ña ak baay mi rek moo ko fa yóbbu nee na waxe na ko jëfe na ko kon nag mi ngi koy sant bu baax a baax nee na moom day loolu la ko jàppee Sëriñ rek du leneen na keneen ko def noonoot loolu lay xool ci yow loolu rek dolliwuma ci leneen nee na kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp nee na lu li sëñ daam waxit muy liggéey buubi di tabaski yi xëy na léegi ñu jublu ci nee na mi ngi ci soññi ñëpp addiye yét bari na joxe waaye ku joxewul ku ne mi ngi lay soññi nga taxaw ci joxe ko tanu sarlu ci bu baax a baax nee na mas naa ànd ak sëriñ naar dem ci sëriñ Saaliwu nee na muy jamono yi sëñ Saaliw waxee ca mbiri tabaski yi nee na bi sëriñ naar dikkee ni ko man day mbàkke xar ya dage na la ca daa ànd ngi nii nee na sëriñ Saaliw daal di muñ muñam bu tedd ba ni ko sëriñ ngañ yéen bi may waxit boolewu ma leen ci ndax yéen kenn du kenn du leen jàngal dañuy jàng ci yéen waaye yéen kenn du leen jàngal kon nag nañ ci góorgóor lu baax fas yéene sax rek sëriñ bi nee mi ngi jégg lu baax baax ci guddal gi jërëjëf jan Mbàkke jërëjëf jan mi fi nekkal sëriñ Touba. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér nee na bu di toon ak ndigalam sax adduy sëriñ Sidi Naar yii mënuma cee tegaat dara nee na ndax moom mii ci jëmmi boppam soññiku naa ci kàddu yi bu baax a baax a baax nee na dolli na ci it bu baax a baax nee na ndax lim la faral di wax dana dalay wax na la yarub sa maam ja sëñ Baara moo feeñ ci yow moo tax loo nettali ci Seex Isaa rek ku ko dégg day xam ne xarfan bi arfin la te sëñ Baara sëñ Touba ko yar kon yéen tawfeex ju bari ngeen am ci sëriñ bi ndax Cheikh Issa képp doy na sëkk ab liggéeyam ndax li ko sëriñ tubaa gërëm bari na lool te li ci ëpp boole na ci ay waa këram kon moom bu jenn doomi sëñ Issa jëfaatu doon dara itam lu bokk ci moom rek. wala lu ko yaakaar dana tàbbi àjjana te Serigne Touba moo ko ko seereel kon sëriñ Sidi ñoo ngi lay nuyu bu baax ci turu Serigne Mountakha di la jottali ak cantam ak ngërëmam yaak mboole yépp nag di ko tàmbalee nag ci sa kilifay bopp yi di Serigne Abdou Ali mi nga xam ne. moo fi jëmm tey jii maam Cheikh Issa Diène ci kaw suuf ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ba mu wutu magam yu tedd ya sëñ Abdou mi nga xam ne yàgg na ci jataay bi ci liggéeyal Serigne Touba yàlla doole ay leeram ca taas ñu ci barkeem di nuyu Serigne Souhaïbou mi nga xam ne tey jii moo fi toog jataayu sëñ Baara. di nuyu nag sarak yii yëpp ñu xam ne ñoo àndak yaw te nekk wenn say topp ci sa ginnaaw àndak ak yow liggéeyub Serigne Touba bi nee na waxtu wi dafa xaw a xat waaye la Serigne mun taxa waxoon moom rekk laat nee na bii ci guddi rek wax na ko ko ci guddi gi booba nee na xaw naa guddi sax. ne ko moom ba Basiiru mi ne ko waxal ma sëñ Sidi ne ko ca bu yàggoon laa ko settantaloon ba seppi ko ba xool ko ci biir taalibe yi gis pa séefam ak yitteem ak taxawaayam nee na mu fasanteeg yow kóllëre booba nee na booba loola yàgg na lool ca Poroxaan waaye nee boobee ba nëgëni sa fa séef day dolliku yaakaar yi sëñ Muntaxa it day dolli ko ci yow nee na lam ko ci tagalit mooy sëriñ Sidi de pësteefu mag ña la yor ndax la maamam Cheikh Issa daan jëf ci kër sëñ Touba mooy lii sëñ Sidi def ci kër sëñ Touba ba tey rek loolu nag kon kenn mënu ko weesu ndax saa su sa jëf accès ko xam taarix xam Cheikh Issa ni mu daan jëfe ci kër sëñ Touba. nga xam ne lu mu xalaat rek ne sëñ Tuubaa war naa bëgg loola daa am basiira moom Cheikh Issa balaa sëñ bee laaj loola Cheikh Issa dem wuti loola andi moo tax li ko sëñ Tuubaa gërëm bari lool gërëm na ko ba àgg ci na ko gërëm naa la ngërëm loo xam ne dara mënatulaa yàq yow sëñ Issa man mii di Serigne Touba gërëm la gërëm li sax mënatuma laa yàq waaye loolu lépp Cheikh Issa da koo def ak laxasaay ngir liggéeyal Serigne Touba kon Cheikh Issa wax ci moom dafa jafe rawatina sax ci waa Njende ndax moom kuy jaxasoo njabootu Serigne Touba gi wala ñu yar la da fonk Cheikh de. nee na moom mii Cheikh Mamadou Bassir di wax ak yéen de laata may am fukki at laa xam lu bari ci Cheikh Issa te ci sëñ son yi bu laa ko daan déggee am na ci loo xam ne sëñ son yi bu ci Cheikh Issa la ko déggee da koo fonkoon lool waaye nag njabootu sëñ Touba gépp ñoo meloon noonu ci Cheikh Issa Cheikh Abdou Khadir mii wasiila way juram moom mii noonu la meloon. sëriñ Saaliw it dégg na ci moom lu bari lu muy nettali ci diggam ak sëriñ Tuubaa loo xam ne ci làmmiñu sëñ Saaliw la koy dégge kon ñoom ñooñu day xamoon nañ diggante Seex Isaa ak sëriñ Tuubaa loolee nag moo dox ba agsi ci yéen ñii ni ngeen nekke naga nii dara soppikuwu ci na seen maam ya doon doxe ci pastéef akuk dogu akuk jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ Tuubaa wàccu leen ko soppiwu leen ko kon nag bis bii ñu doon defal sëñ naar nga xam ne day jëmm joo xam ne day gànjar sëñ nañ ko mën a misaale nee sëñ naar daal day mel ne sooroor ci biir jumaa ci am njàmbaaram ndax léppam léppam jox na ko sëñ Tuubaa loolu moom kenn fàtteegu ko maa ngi fàttaliku bi sëriñ Abdul Xaadir nekkee sëñ Touba santaane ay liggéey yu bari ci këram bopp sëñ naar moo ci jëkk àgg moom képp sax moo ca jot a ci nekkul sëñ Abdul Xaadir te la ko waral da doon liggéey guddi ak bëccëg nee mi ngi fàttaliku guddi gi ñuy xadd tabax bi dañ koo xadd ba noppi mu taw ci guddi gi nee na loolu maa ngi koy fàttaliku. mbaar moomee itam ci lañ mujj a siyaaree sëñ Abdou Khadir kon moom ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek sëñ Saaliwu ci ak njalbeenam wax na ko ay nit ne man dey sëñ naar mii jaaxal na ma baaganteem bii dey day dem di ñëw rek te lu agsi fa moom rek mu andi ko te loolu ci njëlbeenu sëñ Saaliwu la. noonee nag soppiwu ko ba nim fi bàyyi ko kon yàlla suñ borom dolli ay leeram ca taas ñu ci barkeem képp koo xam ne ñëw na ci bisam daal loo ci fas te muy pasteef sëñ Basiru nee na wóor na ko ne sëñ Tuubaa dana la ko defal jërë ngeen jëf na ñëpp nangu ñaan